Midi Culture. Idrissa Seck mës a dil ak euh, président Macky Sall ndax kon amalu ko benn njariñ kàddu yi as Babacar Diop euh, as Babacar Gueye la moom nag moo yore lépp lu jëm ci wàllum élection ci parti réew mi mu yokk ci ne kon Idrissa Seck moo ngi fi te li ko taxa noppi dafa fekk ni rek kon lépp li mu waroon a wax wax na ko ba pare Union des routiers du Sénégal ne neen kon cib grève lañu jëm fukki fan ci weeru février bi nu dëgmal Gora Khouma ma leen jiitee ne règlement 14 bu UEMOA moom la ni naqarlu tey kon bokku nook ñamuk déggoo ko ministre bi yore wàllum napp gi di ngeen dégg kàddoom ci biir midi culture reportage bi tey ñuy waxtaane kon li ñu duppee espace vert ak ñenn ci gox yi nga xam si dañuy am jafe-jafe yi fu nu ko daal di ah, defee li mbokk ak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole nee ni ponk ba ci biti réew buñ ci àggee Penda Badji lañ ci àndal maa ngi lay nuyu lu ci nar a gën a fës bokk na réew Mauritanie bi nga xamante ni yokkuteeb njëgub garab gi fës na fa lool gouvernement beneen ni loolee ñoom duñ ko taxaw seetaan buñ fa jógee nag dinañ ñu utali ji euh, Burkina Faso foofee nag ab attaque moo fa am ba ñu faat fay civil yu bëri ca village bu tuddoo Silgadji dinañ ko nag jeexalee ak coronavirus bi nga xamante ni épidémie la ba am foofee ca Pékin ba benn nit jot ca ñàkk bakkanam boo noppee Papa Ma Jaxate mooy ñëw ak xibaaru tàggat yaram maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëriñ tegu xeer gu njëkk gu stade olympique ba ca Diamniadio Matar Ba di jëwriñ ji ñu wàllum tàggat yaram ma nga ca wàccaay la dafa bëgg askan wa fees fa dell ca bés koy amal euh, football ca tugal ak ay match euh, coupe yi nga xam ne tey jii da war nañ koo door foofee ca euh, continent bu Europe daanu ko jeexalee ak njënd meeg njaay mi ci football yi ay fan rek ka ca des waaye njaay maa njënd maa ngay dem doomu Sénégal yi am na ñu ñu tudd ci kanam lay doon. fii ak fukki simili ngeen ñëwaat kon toogaat fii ngeen toog yaatal loolee ngeen fi lim lépp buñ ca noppee soogaa dugg ci pàcc bi nu jagle laa ak cosaan mu gën caa fës kon Miss Sénégal 2020 mi ñu bëri di ŋaañi Aminata Badiane ma nekk présidente organisation ba di ko dégg ci ay leeral Dakar nara daral festival bu njëkk film documentaire caméra 72 72 nara def kon ñetti fan leneen loo xam si itam dinañ ko waxtaane ci biilee jotaayu xibaar moo di pakaaw di dëkk bu nekk ca Ziguinchor nataalu Boubacar Boris Diop gan gi ak yëglekaay yi xëy subaak tey mooy buural midi culture ñu ñaanalante Kader Lo Abdoul Xaadir moo nekk ci machine bi. midi Agriculture Serigne Saliou Seck ngeen ci àndal mam ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram fàcceel na ma leen ko xëcce bopp ba rek laay duggee ngeen ci yaatal gi mu di kon cell gi nga xam si eh, Idrissa Seck nekkee na ko jaaxal ñu bëree bëri tax kon ki nga xam si moo làmboo lépp luy wàllum élection ci parti bi mu jiite di réew mi di As Babacar Gueye daal di wax ni kon Idrissa Seck dafa fekk ni lépp la mu waroon a wax wax na ko ba noppi te it eh, nga xam si dañuy wax ni kon dafa amub dil moom ak eh, président Macky Sall loolee nekkul loo xam si moo am ñu teelu ko moom As Babacar Gueye ci ah, ci micro RFM. bi osé wax ni li ma dese ci suma àdduna amul benn décret bi nga xam ni dina jël benn affaire di ko di di orienter suma destin non je dis lan la ko Macky Sall la mën a jox par rapport à sa aujourd'hui man mii di wax ak yow rek àndoon ak moom ñu dugg ci biir toogoon ci biir gouvernement boobu moo gënoon yomb ba mu nan ko noppil

dans une posture étatique de coacher le parti aujourd'hui le plus dynamique du Sénégal avec un vice-président qui le supplée vraiment sur le terrain et de la plus bonne manière je pense que de ce point de vue-là on n'a pas de difficulté nit qui amul besoin du toog Idrissa à tout moment pour naa ak moom ataaya pour dem Idriss ron la garabu ron la jege ko taxul nga am ci keppaaram. kàddu yi as Babacar Gueye euh, yore lépp luy wàllum élection ci parti mi bu sa Seck ñu wax kon ci euh, dem beek dikk bi rawatina règlement 14 bu IMOA bi nga xam si kon jamono ji moo daal di euh, merlo ba futu transporteur conteneur yi ba taxoon kon ñu daal di xaatimoon juróomi fan yi grève ne duñ ci faste xànc ak moromam waaye kon gannaaw déggoo gu am seen diggante ak jëwriñ jore wàllum napp gi ci lan daal di dakkale lu lol ak dogal bi nga xam si union des routiers du Sénégal daal di nañ koy jël ñoom nee fukki fan ci weeru février bi nu dëgmal ci grève générale lañu dal di jëm ki ni gisee moo di kon seen secrétaire général di euh, Gora Khouma moo nekkoon ganuk 9 11 ñu teewlu ko. waaw d' abord dañuy yëgal sénégalais ne ñu union des routiers du Sénégal dafa ànd ak euh, euh, conscientisation defoon suñu préavis ak SYNACOR muy syndicat. national des conducteurs routiers du Mali ñaari signature ñoo déposé woon préavis Mali am Sénégal am jàppale dix lañu dem gelaw diggante bi forom am na forom amee port ah, am ay poñ yu am si ñoom union de route Sénégal ak Sinacor duñu def lu gërëm leen sant leen ci poñ yañu am waaye nag loolu taxawul rek la forom transport gërëm bu xeex dara ba am dara bu doon benn poñ la sama da nga war a gërëm pour waree na man mi solidarité ma àndoon man ñoom aussi ci xeex bi nga xam ne moom du du taxaw tànk tamit beneen secteur yi liñ ko bëgg amuñu ndax ñëpp dawuñu port te ñi daw port tamit du ñëpp am conteneur ñu dafa jël soble dafa jël ceeb dafa jël noonu nekkoon euh, kàddu yi euh, góor xuma waxtaan wu yaatu kon la seqoon ak rajo King FM tey kon moo nekkoon ganuk 9 11 ngeen di wéy di déglu di Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróom-ñaari simili. suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn ñaari tubab ñoo bolo kon ci ak kuréel duppeekoo ñoo far dal di ko nekk fële ca Bukot Jembereng ñom nak sen projet bobé mi ngi jëm ci lu dal di euh, gëna lawal alam bi na kon euh, dal di kon défar ba euh, Casamance gëna dal di am natangé Papa Ma jaxaté sar. ci xolu verte Casamance ca Bukot Jembering la Sabrina Peno ñu naan ko Awa ak Lenora Amon ñu naan ko Penda daal di jël dogal sànc ci njëlbeenug seen yëngu-yëngu association bi ñu duppee ñoo far mi yëngatu ci wàllu njàng njàngale mi waaye it am pàcc bu am solo bu ñu jagleel wàllum environnement Léonora sax moom mooy pàcc boobee ci projet on est en train de bâtir un écolieu. ñoo ngi euh, tabax ben projet bo xamni ne si dafa jëm ci dëgëral walu environnement bi fi ni ci réewum Sénégal té lolu nak dañ ko def ngir ñu mëna respecter alam bi waye tamit ñu insister ci walu euh, gestion ndox mi ba ci euh, li leen di déchets yi waaye tamit énergie solaire yi. de l'eau de la biodiversité préservée. bi ñu tambalé ak légui bari na ay djégo yo xamné def nañu ko waye lolé taxul ñu daal di bàyyi seen loxo Léonora il y a encore euh, beaucoup de travail beaucoup de de sensibilisation bëri na ay jéego yu ñu war a def ngir euh, euh, sensibiliser askan bi ba nu mën protéger li di aalam bi ci wàllu woowu waye tamit wax leen lan moo tax mu am solo ndaw ñi mom dañu bëgg def ay sorties pédagogiques jaarale ko ci biir l'école yi. soin de notre environnement. ginaaw balen askan wi dalalé ak mbégte ñaari doomi France yi fas yéene daal di wóyal mbir mi ci diir bu yàgg Sabrina. c'est un projet qui est pérenne et sur les collines. projet bi dafa am solo té tamit dinañ ci tabax ay mbir yo xam si bép touriste bo xam si bëgg nga fé ñëw ngir euh, découvrir ko manam xam li fi nekk di nga ko def dina la yomb bép xaaliss nak bo xam si jëlé nañ ko ci dañ koy daal di dugalaat ci biir projet bi. jamono yi nak ay copar doon luñu soxla lolu ba tax ñu nekk ci waaye laata lolu kilifa yi nekk ci diwan ba ñu ngi leen di jappalé bu baax ngir ñu mëna sam alam gi foofee ca diwaanu Casamance. jaajëf Papa Ma Jaxate Sarr loole sax moo sabab reportage bu tey jii jëm kon ci gox yi nga xam si daanaka dañuy daal di am jafe-jafe am ay endroit yoo xam si dinañ fa def lu ni mel na am ne tamit am na foo xam si fii nii ci biir Ndakaaru am na fii.

carajo. nit ñi di mën di ko dem ci turam parce que loolu day contribuer améliorer santé nit ñi tamit. ça da lay permettre nga day am ay place yoo xam ne day ay lieux yu public nit ñi ku sonn daa mën am pour récupérer ainsi de suite ak yooyu quoi. Moustapha Thiam jàpp ñi jiite mairie yi ci banlieue bi ñoo war a boole espace vert ci seeni i priorité. ñoom li ñuy calculer yëpp mooy fu nit ñi dëkk rek fu ñu dëkkee la ñuy calculer spéculation foncière bi yëpp loolu la que plan directeur aménagement. Pour de a gis prévoir espace vert comme nous muy prévoir école mosquée ak centre de santé non lay prévoir espace vert mais malheureusement dañ ko peut-être espace yu ñu ko réservé loon dañ koy utiliser à d'autres fins. Pape Gueye yokku ci ni état bu Sénégal moo ci wara jël ay mesures ba paré xamal askan wi njëriñu espace vert. état bi moy woote de jël responsabilité c'est ni li mom franchement parler ñuy comprendre ñu né lu bax la mu def ko mu def ko parce que ñom seen jëriñ la nga xamuñu ko pour ngeen sensibiliser leen xamal leen ko ñu du question soxla leen. Sénégal mëna ji nguur gi taxaw tém ngir ñu jëmmal espace vert yi ci gox yi goxaat yi nekk ci biir réew mi ngir njëriñu askan wi jaajëf Famina Taba, Médiculture 12h12 mbàkk boobee xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Penda Badji maa ngi lay nuyuwaat. maa ngi lay fayaat Serigne Saliou Seck di nuyu également suñu mbokk auditeurs. Mauritanie lañ koy tàmbalee ak kon gouvernement ba ak kàddu yu ñu yëkkati jëmale ko ci euh, njëgul médicament yi. Ya. ni nga ko waxee noonu la amee ca euh, Mauritanie ay fan a ngi nii nag euh, garab dafa cher loolee foofee rawatina ci pharmacie yi mu nekk nag ndogal gi nga xamante bi ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ni indi garab gi foofee nee nañu njëg dafa yokk ca marché international bi moo war itam buñ ko indiwaatee ci moom réew Euh, foog yeeg garab ya cher mu nekk nag li nga xamante ni gouvernement bi daf ko teg ci suuf ni loolee euh, dara amu ca te it ñi euh, ñi yëkkati yooyu les thèses nañ ko teg ci suuf lu mooy rek yoon dina dal senop kaw ci fàttali nag ñoom at bi ñu wees dañoo tegaloon ab bi nga rek dañ ko jublu woon ngir wàññi njëgu garab yi ba rek mu mun accessible ci askan bi yëpp waaye itam ñu am ay garab de qualité bu ñu sukkandikoo ci jërim yi nekk wàllu santé di Netiru Ahmad mi ngi noonu kon Burkina Faso la ñuy wax kon ci songu gu ñu def ay civil ci dëkk bi la di uh, Silgadji Silgadji la ñu song foofee ca Burkina Faso nag la nekk ni ki uh, ab attaque bu metti bi nga xamante ne mu nga am ca province bu bu uh, bilan bi nag bëri na ñi nga xamante ni ku nekk ak sa bilan waaye bu ñu sukkandikoo ca suux ya fukk jàpp cinquante personnes ñoom ñoo ñoo ca ñàkk seen bakkan ca marché ba nekk ca village ba foofee nag moom la ñu attaqué ni ki samedi bi ñu weesu plutôt la xewee ca après midi nag terewul ñu yëkkati ay kàddu bu ñu sukkandikoo ci source gouvernementale ba ni daal dañoo dajale ba noppi euh, góor ak jigéen daal di leen tàqali daal di jël nag góor yi faat leen laataa ñuy bàyyi euh, soxna yi lee euh, ñi nga xamante ni nag ñoo di gouvernement ba taftal ci ne dañoo teg itam ay engins explosifs ci axe yëpp looloo tax sax ba ñu bari jot cee ñakk seen bakkan. jàngoro jile di coronavirus mi ngi woy di defi njombe ci àdduna wërngal këpp Pékin am na kum faray. Pékin am na kum dix euh, nit ñoo ca ñàkk seen bakkan naka jot nañ ko recensé ci bilan bu yees bi ñu sukkandiku ci gouvernement euh, chinois bi premier décès bi nag mi ngi amoon ca Pékin waaye nag euh, am na beneen cas bu fës ca Allemagne tax sax ba askan ba nekk foofee daani tiit ak jàkkaare la dundee ci fan yi ñu nekk yëpp tax nag ba gouvernement ba ña ngay yokk bu baax seenub matukaay ngir rek coronavirus ba mun a dañ foofee ci réewum Chine waaye itam ñu fexe rek ba mu bañ a i réew yu fi eh, ca Europe li moo fi gën a fës ci xibaari biti réew yi. jaajëf Penda Bat yi ñu jàll ci tàggat yaram. yaatal geek Papa jaxate sar dañ koy tàmbalee kon wax ci stade olympique bi nga xamni ci ah, jeewrin ji sallo walum tagat yaram yëkkati na ci ay kàddu mom Matar Ba di ah, sakku askan wi yëpp ah, rawati nak ñu yëngatu ci walum tagat yaram ñu daldi ñew ñëw ci si tegu gu njëkk gu stade olympique bobé ñuy tabax ci jam ñaajo tegu gu njëkk gi nak moy jëmmal ne liggéey yi dina tambali ñaar fukki fan ci weeru février bi ñu jëm lay doon ñu tewlu ci Matar Ba moy jëwriñ ji ñu denk walum tagat yaram Le président Macky Sall le président de la République du Sénégal ci ñaar fukki fan ci weeru février Warna, tek teg ci loolu nga xamante ne moom mooy stade bi war a am jam ñaajo di stade nag boo xamante ne du stade bu ñuy gis ci tund wi wala ci gox yi bariwul balaa ñu naan amul tey bu ñuy nekkee Dakar Arena ku gis image yi da ngay foog ne nekkoo sax Afrique président de la République nag bëgg loolu réewam ci wàllu football mais bu football ba jeexee it dañuy xam ne du football rek lañ fa war a def stade ba dana am waaye dina am ay piste d'athlétisme boo xamante ne ñiy def athlétisme dootuñu jooy piste professionnelle bu ñu ko fa defee la ubbil waaye ku ñëw dang ñu fa a fekk ñun ñi nga xamante ñoo nekk ci sport moo tax fédération yëpp ñu instruire leen ba nga xamante ni ku ci nekk dana mobiliser le maximum de personnes pour président Macky Sall bu duggee jam ñaajo xam ne li mu def sénégalais yi gis nañ ko waaye ñi ci njëkk mooy ñi nekk tàggat yaram toute discipline confondue nawetaan nag ñëpp su ko defee nag suñu mbokk politiciens yi bu ñëwee ñu gunge ñu rek waaye ñun lañ fay fekk parce que bés la boo xamante ne mënuñu ku jóg ne président bu ñu fekkee bu ñu ne eh, a nekkoon eh, kooku di Matar di jëwriñ ji ñu dénk wàllum tàggat yaram moom sax alxames gi ñu jëm eh, dina jiite ak waxtaan goo xam ne war na ko sekk ak waa comité national olympique sportif bu Sénégal di CNOS ak fédération tàggat yi nekk ci réew mi ngir ñu jëm ci wàccaayug Jeux olympiques de la jeunesse yi nga xam ne Sénégal war na ko daloo ci atum 2022. football ci Europe itam tey ji jongante yu am solo dina fa am. ci wàllum coupe France ñu ngi ci huitième de finale coupe nationale bi tey ci talaata. ji ñeenti jongante euh, Belfort dina dalal Montpellier Limonest di daje ak Dijon Angers bu Sada Thioub dina daje ak Rennes bu Edouard Mendy ak Mbaye Niang euh, Monaco bu Diao Baldé Keita moom dina dalal euh, Saint-Étienne ca Coupe d'Italie quart de finale yi ñaari match moo ca des ginnaaw ba Lazio ak Lazio de Rome ak AS Roma daal di qualifié ba noppi AC Milan dina dalal tey Torino ëllëg uh, Inter Milan dina laale ak uh, Fiorentina Angleterre ñoom ci demi-finale retour Ligue bi daañu ko amal niki uh, tey ji ak ëllëg tey ji Aston Villa dina dalal Leicester ci match aller ba kenn ku nekk benn nga dugaloon sa camp yi moroom beneen jongante bi ëllëg la diggante Manchester City ak Manchester United fàttali ne match aller ba Manchester City moo daanoon ñetti bal ci benn. ñu wax ci kon mercato beeg marché hivernal bi nga xam ne léegi tey mu jeex. yi njënd meeg njaay mi ci footballkat yi bokk na ca doomu Sénégal bi am ñaar fukki at ñu ko ca génération foot nekk ca FC Metz ñu naan ko ja euh, Amadou ja Ndiaye moom nag abal nañu ko juróom benn weer ca club bi di FC Sochaux nekk ci club Ligue 2 bu France euh, ñoom Sochaux nga xam ne sax Omar Daf moo leen di euh, tàggat benn attaquant bu France bi di Atem benn Arfa moom nga xam ne nekkul woon ci benn club daat nay xaatim ab contrat ak club espagnol bi di Real Valladolid fii ak euh, saison bi di jeex euh, mom Hatem Berfa euh, Ben Arfa club ba mu nekkon ci ay jamono di Paris Saint-Germain ci lu yàggul dara ñu ngay waje a jënd défenseur italien bi di Mattia de Siglio nekk ci Juventus Turin ñu war ko échanger ak seen latéral bi di Levin Kurzawa waye nak club bu Juventus. Euh, ñu leen di wooye la vieille dame euh, dañuy rek laaj waa Paris Saint-Germain ñu daal di leen euh, tegal ab xaalis ngir ñu mën a matale googale wecce Cavani moom nekk ca Paris Saint-Germain ku moyul fii ak lu yàggul dara dana fa jóge dem ca Atlético Madrid mi nga xam ne dina tegaat ci table bi ab xaalis gu mu yokk ngir rek jouru Uruguay bi mën leen a fekk ci seeni club ñu jeexale ko ca Espagne googe ndax FC Barcelone Euh, mu ngay wëy di def lu mu mën ngir mën a recruter euh, jour que Valence bi di Rodrigo euh, te ñu ngay wax ne bu ngir mu antu rek ñu ngay bëgg daal di jël doomu Sénégal bi di Moussa Wagué dal di koy teg ci transition transaction bi ngir Moussa Wagué dem ca Valence Rodrigo ma nekk ca Valence ñëw fekk ci FC à Barcelone Serigne Saliou lii mooy li ñu mën a jàpp tey ci xibaaru tàggat yaram gërëm la Papa Ma Jaxate Sarr ci xibaaru tàggat yaram xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi xibaaru caada yu dañ koy tàmbalee wax kon ci élection Miss Sénégal 2020 yi nga xam si kon ki jël raw gàddu gi tabb nañ ko ni ki gaaw bi ñu weesu waaye nag mbir la moo xam si ah, daal dinay jur coow gannaaw ba ko ko joxe moom Ndeye Fatou jonn bu ah, Fatick ndax tax tamit kon ki daal di jiite organisation Miss bi daal di ci andi ay leeral mi ngi wuyoo ci turu Amina Badiane ñu teewlu ko gannaaw jokkoom ak King FM. pour la première fois euh, comité national songu grand théâtre organiser ko mu riche mu fees nit ñi fu jóge fu nekk loolu c'est une première coow li nag bari na parce que c'est normal mi Sénégal day ànd ak coow ndax euh, tey ji bu Thiès gañe woon nga dégg ñu ne Amina. Thiès la dëkk bu Ziguinchor gañee ñu ne Amina Badiane la sant Joolaa la euh, Fatick moo gañe tey ñu ne Macky Sall <laughs> ñu ne leneen waaw critères yi du rafet kese parce que dañu am euh, série de critères parce que critères yi euh, beauté mi ngi ci nag moom mooy beauté moom moo njëkk ci critère bu ñu paree dinañ xool tamit comportement niveau d'étude dinañ ko xool parce que miss bi dafa war am niveau bac war mën a exprimer wu d'ailleurs looloo tax ñu di leen retenir ci dafa war a dem fu nekk war na mën a wax même anglais waaw loolu mën naa ni mën na nekk aussi trac parce que tamit c'est pas donné à tout le monde de parler du nekk ci ñoom ñëpp ci ñenn rek mais je crois que am na ñoo xamante ni génn nañ ci aussi culture générale bi mais am na ci ñenn ñoo xamante ni nii dañu amoon trac mais c'est normal parce que xam nga public tamit du ñëpp ñoo ko miin te xale yoo xamante ni nii musuñu mi jàkkaarloo ak public musuñu génn bu ñu waxee fa ñu jógee fa ñu dëkk donc c'est tout à fait normal man je trouve kàddu yi Amina Badiane nekk kon présidente organisation bu euh, Miss Sénégal ñu wax kon ci euh, Ndakaaru mi nga xam si nar naa dalal euh, festival de cinéma film documentaire bi ñu duppee Caméra 72 loolu nag ab événement culturel la boo xam si la ko tax a jóg moo di kon daal di gën dëgëral agenda culturel fii nii ci réewum Sénégal waaye tamit gën a fésal ay réalisateurs yoo xam si dañuy yëngu ci wàllum caada Penda Badji fexe ba gën a ñoŋal cinéma file ci Sénégal rawatina film documentaire yi le moo tax a jóg caméra 72 di ab initiative bi nga xamante ni acteur culturel yi nekk ci Sénégal ñoom ñoo lancé. mooy première édition bi dafa festival de cinéma boo xam ne duñ fi dawal lu dul documentaire yoo xam ne day wax caada day wax ci art maanaam documentaire yoo xam ne day wax ci théâtre documentaire yoo xam day wax ci cinéma musique littérature art plastique etc. donc loolu rek la ñuy dawal. naam nag door nañ ko niki altine gilee bi lépp événement nara jeex àllarba bi ñu dëgmal bëri lool ay réalisateurs yu jóge ci at na wargal képp ku ne ñëw fësal say film yi nga jot a réalisé ni ki démb ak lañ ko tàmbalee fas yéene ko jeexal àllarba donc euh, conférence la ak projection ay film yoo xam ne ñu ngi jugee euh, Tunisie am nañu ñaari film yu jugee Tunisie pour ñu wax euh, Farah Khadar jigéen la moo def benn film ci beneen artiste plasticienne tunisienne ku tudd Sadika Keskes ginnaaw loole nag Aline Diop bokk ci taskatu xabaar nga xamanteni ñoo initier bi lépp événement di ki toftal ni dinañ def seen kéem kàttan ba at bu jot ñu mun di amal bi lépp événement mission bi ñu ñu am yéene nag wëyal ko bu gën a ngal at bu jot ñu organiser ko objectif bi nag mooy renforcer agenda culturel bu Sénégal am na spécial loo xam ne ñoo na yokku ci agenda culturel et touristique bu Sénégal benn objectif bi mooy jëmmal li nga xam ne mooy liggéeyu réalisateur documentaire bi ñetteel bi nag mooy fexe ba euh, discipline artistique yi am benn support de promotion ndax ku daawul dem dem exposition xëy na bu seetaanee film si Iba Ndiaye wala Khalidou Kassé wala Moustapha Dimé dina comprendre davantage lan mooy art visuel fexe ba aada ak cosaan gën am doole ba ca wax ci àdduna wërngal képp rawatina ci réew bi di Sénégal moo tax caméra 72 ñu fas ni ci nak, fësal liggéey yi nga xamante réalisateur yëpp ñu koy amal ci àdduna wërngal képp ñeel film documentaire jaajëf Penda Badji gëstu bi tey dañuy riir utali si gi wax ci dëkk bile di ah, Pakao sori lool ca dëkk ba daanaka sax kon moo nga ca frontière bu ah, Guinée Bissau Pakao nag dëkk la boo xam si la fa yeewoo ci ay doomu aadama ëpp na téeméer ak juróom fukk ak ñeent te kon ah, ñaar fukk ak juróom-ñaari kër ñoo fa nekk faatu Sow. Mbaka wala Pakaw dëkk la bu nekk ca Casamance jege frontière jege frontière Guinée bissao bi bokk ci communauté rurale bu Boutoupa Kunda ci arrondissement bu Niaguis département bu Ziguinchor bi ñu recensé dëkk ba ci atum 2002 lu toll ci 194 habitants ñoo fa sañ dëkk bi ñu ràññeeku lañ ci wàllu mystique ndax ay borom xam-xam yu màcc ci dëkk bi la lañu yeewoo bokk na sax ci yenn mbër yi bu ñuy bëree fa la ñuy utali ña sant Dramé ñoo gën a sanc ca dëkk ba di ay borom xam-xam yu ñu fa ràññee Dar Salaam Sakaar ba ci Jende lépp di ay dëkk yu nekk ca peggu pakaaw activité yi ñuy yëngu nag bokk na ci bay woy waaye la gën a fës itam ca la ñuy amal ca dëkk ba moo di njàngum alxuraan sàkku xam-xam donnee ko ci seeni maam pakaaw dëkk bu étranger yi taamu la itam bu ñuy amal seeni vacance ci Sénégal loole waxal mu bokk ci village touristique yi jaajëf Fatou sëw doonu gën a xamale kon ak dëkk bi la di Pakao Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le tey ñu leen di gën a xamaleek Boubacar Boris Diop toll kon ci juróom-ñaar fukki at ak ñeent moom nag kon ab jàngalekatu philosophie la woon nekk tamit ab taskatu xibaar boo xam si da doon bind daanaka sax génne na lu ëpp fukki livre Penda Badji ay atam toll ci 74 ans ci atub ren jile Boubacar Boris Diop écrivain enseignant éditeur intellectuel sénégalais ñu Kolol, ko lool ci wàllub mbind ci mim réew 1980 ba jooni yàlla tey jile lu ci une quinzaine d'ouvrages jot na ko professeur de philosophie taskatu Khabar, Lata mi doon directeur de publication du quotidien Le Matin Boubacar Boris Diop doon ca mujjantal ba ab à atub 2000 mu daal jot grand prix littéraire d'Afrique noire ngir tolloog la mu bind ci ay œuvre jot a participé itam moom ak fukki écrivain africain ci projet d'écriture sur le génocide des Tutsi au Rwanda bi lépp expérience sax ma ko may ba mu xaatib ab roman daal di koy tuddee le titre des ossements paru en 2000 mu doon ab téere bi nga xamante ne mu ngi dikkaat ci génocide ba amoon foofu ci Rwanda ñu bëree ñàkk ci seen bakkan ouvrage bu marqué loolu carrière am ci wàllu xaatim ñu daal di koy réédité 2011. Le regard sur cette tragédie a, a changé au départ c'était euh, une incompréhension totale. Mais aujourd'hui, euh, grâce au cinéma, au théâtre et, et grâce à, au roman, à la fiction, eh bien, on, on comprend, on comprend mieux. di kuy roy loolu ci tànku Cheikh Anta Diop Boubacar Boris Diop Bok itam ci xaatimkat yi nga xamante ni dañoo bëgg ñoŋal lool kàllaamay kocc ci abteri tudeko tax ba mu daal di xaatim ab téere tuddee ko bàmmeelu kocc ci yu yi mu jot 1981 le grand prix du président de la république file ci Sénégal ci roman ba mu tuddee le temps de Tamango mu publié woon ci bobule at Sénégal jotta dundu dund ab naufrage bu metti lol muy suuxu batalu Joola ginnaaw lolé décembre atum 2002 mu daal khatim ab article daal koy tuddee un bateau au fond de l'Atlantique avec sa cargaison et des centaines de corps engloutis. Gal suux fukki at ak ñaata juróom ben ci ginnaaw mu daldi di ni mu dëppoo nun ñepp ñu xamné ay téméri, téméri, doomi Adam, ñu ngi ci biir mais ñu bàyyi ko noonu ken ken

Midi Culture ganu xibaar yi. ganu xibaar yi tey kon ñuy dalal Mara Seck moom nag daal dinay génne lu euh, bees ab projet la sax mu duppeeku kon électronique euh, sabar moom Mara Seck nak doom la ci ndem si yàlla àll Seck mi nga xam si daa daan ànd ak jamono euh, ki la di Youssou Ndour Mara Seck laaj ak tontu dox na digganteem ak Ndeye Mathi Dieng. Mara Seck ñoo ngi lay. <laughs> maa ngi lay xam lan ngay def. waaw man ci musique laa yëngu nag ndax mën naa ne ci laa judu juddu euh, ndax bo juddoo ci famu ngeewal mom donc da ngay juddu rek da te ci len lay xoj donc na man ci la juddu bama nek xalé yag na lol di nek ndek def di fecc après commencer di tëgg aussi après di way aussi donc loolu yëpp bolé naa ko ci ci xeeti taanam ci musique 2003 la commencé concentré ci musique yag na bobu gën naa nekk tout tànk yag na lol def na ay at donc nak yalla def may dem expérience ja ci groupe yu bari bari bëri yoo xam jot na fa jaar def album mbalaax ak yenn ak yenen ak yenen participer ci artistes yu bëri yoo xam ñu ngi fi Sénégal ba yàlla def nag tey ji moo rencontré benn beatmaker français bu tudd Stéphane fii Dakar ñu def benn projet boo xam ne électronique sabar. électronique sabar voilà sabar ñu jël ko boole ko ak musique électronique xam musique électronique ci machine lay ne. donc nag mais nag dañuy jëlee ay voix ak ay instruments enregistré ko ci biir en même temps puisque si jole rek bu ñuy jouer live c'est normal donc nag projet bu loolu lañ def style musique boobu depuis ñu ngi créé depuis 2016 euh, suñu groupe album bi nag liggéey nañ ko depuis deux ans donc mu génn nii. yi moo tax ba tey ji ma ñëw pour dégtal ko sénégalais bëgg sénégalais gën ko miin li nga xam ne ñu ngi koy def muy musique bi. Mhm. ngeen génnee album ko. album bi nag boo xoolee y' a douze titres dedans douze titres moo ci ne et liggéey nañ ko pendant deux ans deux ans liggéey nañ ko vraiment di ko xool xam nga album moom mën a tëb tëb rek génn ko te ñun suñu groupe bañ ko defee dañoo commencé ay version live di ko def dañoo commencé rek commencé jouer ay live boobu album bi ñu

feebar bi incha allah. kenn la. ban inspiration nga am ci moom. waaw sama papa nag moom na ndax boo dégloo ci album bi léegi ci suuf gars yi ma morceau bu tudd Barke Baye. donc vraiment sama papa nag royukaay koo xam ne ku muy inspiré la. ma ko delloo njukkal ci album ne moo tudd Barke Baye. sa waajur bu góor nekkoon feccikat bu mag ñu xamoon ko ak kii di Youssou Ndour. Mhm. bi mu dëddoo àdduna ban relation nga am ak ki mu nekkaloon Youssou Ndour. jàmm rek laa seq moom ndax boo xoolee ñoom ñu samay papa ci album bi sax def na ci benn message bu rafet bu bu boo xam ci suñu album bi mako ci gërëm diko sante donc vraiment relation bu rafet la am ak ñom ñu euh, ñu sama papa dima conseiller et puis wa ñom ñep Super Étoile ci chat cat souf vraiment. ndax mën nañ xam sa ay projet loy wajal donc. yaatal musique bi nga xam ñu koy def pour gëna valoriser suñu instrument bi nga xam ne mooy sabar ak musique bi nga xam ne boole nañ ko parce que permettre ñu tay ji ñuy taxaw ci chaîne yu gën mag ci Europe yo xam ne ay devant 6000 personnes ou 10000 personnes di la seetaan donc nak sante yalla bu baax diko gëna gën a ca kaw pour gëna wane sunu culture ci àdduna bi. kon ñoo ngi li si yéene kaay réew mi jamono ji laaj na yeneen i sunguf yoo xam ne seeni borom war nañ ko wallu ba noppi wala sax ñu def ndëpp national ndax nag saful ni dan fee tooñ wàlliwu rey yeek faat bakkan yi mel na ni tulleeg màlle te it ñi koy def xàmmeetuñu doomu aadama ak melentaan te li ci gën a doy moo di ñi niy faat ña leen di faat ñu leen jege lay doon taxit daanaka yéen kaay nu xëyandool ku nekk xëy di ca wax ak nan nga ko gise ubbi l'observateur journal uri 15 angul konis bi ne démb rek am na benn soxna bu nu rey ca banlieue bu ndakaaru njooba sekk la tudd ca Pikine lan ko rayee juróom-benn fukk ak ñeenti paaka lan ko jam yéenekaay bi yokku ci ni mbir ma ca boori sibs la xewe te it la ëlëm ñépp moo di ndaw si kenn tëddewu ko kenn rendiwu ko te yit kenn jëlul dara ca la mu yoroon waaye dan koo jam ay paaka ba ni mu seddee le quotidien liy xew ci mim réew wax ci jot na ndax naka ëpp na ay doomu aadama ñooy dem ba reyante ci seen biir ba tax deret ji wéy di tuuru looloo tàbbal askan wi ci fitna journal bi yokku ci ni gannaaw Kaolack Sédhiou Pikine Njombe ganee si waat na leen ndax ñaawteef dëgg moo fa xew ni ki démb Vox Populi ne ndaw sanu Demba Seck la tudd daanaka ñaar fukki at rekk la amoon oustaz Mbay di kenn ci seede yi demoon fa mbir ma xewe ne bi nu fekkee ndaw si mu tëdd ci leen gisee deret ji wër ko tàbbal ñëpp ci naqar ak tiitaange l'observateur ne li ci gën a doy waar moo di ndaw si faat nan ko te kenn jëlul ci moom dara les éco ne nan ko faatee sax moo ñaaw juróom-benn fukk ak ñeenti jam-jami paaka lan fekk ci moom boole ca bin ko defee mbir mu ni mel ba noppi dañ koo sànni ci biir kër gi le quotidien ne du mas a dellu si les échos las l'observateur ba ci vox populi ne lu ci man di am daal réew mi jamono ji li ñuy dund doy na waar te it mën taweesu fitna doomu sénégal ya nekk ca Chine itam jamono ji fitna dëgg la ñuy dund l'observateur ne jàngoro ji di coronavirus moo leen tiitloo ba tax étudiants yooyu di dund ca Wuhan di dëkk bu nekk ca Chine ne li ñuy sàkku ci njiitu réewum sénégal di président Macky Sall moo di mu dugal leen ci roppalaan jële leen foofee ca Chine andi leen ci réewum sénégal ko mooy ñoom ñëpp dinañ faatu benn benn journal bi yokku ci ne président Macky Sall nag bu ko defee loolee du ca jiitu ndax nag yeneen réew jot nañ koo def fu ci mel ni réewum France États-Unis ba ci réewum Maroc jot nanoo rawale seeni doom yooyu dund foofee ca Wuhan ga ca Chine journal bi ne lii moo tax ñu jàpp ni jot na sëkk président Macky Sall yóbbul étudiants ya fa yeewoo ak roppalaan yàpp leen ca delloo si leen ci réew mi lu ko mooy bu leen jàngoro jile di coronavirus dalee boo moytuwul dina ñàkk seen bakkan ndax nag jàngoro joojee ba fii faat na fa lu toll ci juróom-ñett fukki doomu aadama ak benn te laal na fa lu ëpp ñaari junniy doomu aadama te li leer te wóor moo di jàngoro joojee day rey ne li wóor te leer moo di commission nationale bi saytu wàllum carte presse taxawal nañ ko niki démb Daouda Mine nekkub taskatu xibaar moo koy jiite journal bi ne ci atum 2017 la ñu gëjoon a gis ñuy séddale carte de la presse te it carte la boo xam ne si moo nar a wane kan mooy journaliste ak kan mooy technicien de médias ci mim réew jiitu réew mi di président Macky Sall yéenekaay bi nee na mooy buur di bu mi te it lu ko neex lay def moo taxit lu ko neex mooy am ndax doole doxul jàmm te it ba si góor a koy bay exclusif yéenekaay ne waaye nag na moytu ndax moom président Macky Sall Sall am na punkal mu faree ko moom moo xam ne ay nit ñi nga koy ngemb ngir samp ko ci élection présidentielle yi nar xew ci atum 2024 grand place ne ñaari punkal a ngi nii tamit yu fareek président Macky Sall ñu ngi mel ni safara ak caas ndax duñu laale muy ministre Aly Ngouille Ndiaye ak ministre Samba Ndiobène Ka te ñoo bokk fu ñu nekk mu di Linguère Abdoulaye Sow itam ci président Macky Sall la fare bokki ci APR source anne moo nekk itam directeur généralu centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru di waaye mbir mu doy waar la def ndax lu mësul xew ca kuddu la fa def mu di Abdoulaye Sow tabb na directeur général adjoint ca kuddu mi ngi noonu ko nekkoon as lëf ci li yëglekaay yi xëyee subaak tey wàllu musique la ñuy jeexale jotaayu Midi Culture tey ñu àndi leen groupe Safari ci sa seen woy bi nga xam si ñu ngi ko duppee sa tàkkusaan ñu teew loo kenn bu doon noonu mbokk yi kon foofee la ñu yem ak yéen ci euh, midi culture yama itam ak li ñu cërale woon ci waxtu jeex di jaajafal bu baax a baax ñu nu doon may nopp ci 99 point 4 ak ñu nu doon topp ci 3w point king fm point sn cant ngërëm ñel na bu baax a baax kaderul Abdoul Xaadir mi nekkoon ci euh, machine bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kàddu gi production Lamine Ndiaye digital Yacine Pouy léegi-léegi kon alaaji Baye Cheikh mooy ñëw woyal king feeling lu mooy looloon maa ngi jaajëfal képp k jàpp ci réalisation midi culture ba mu yemb na jàmm yàgg